wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu site internet bi nga xam ne mooy Pass Génération Cheikhou di leen nuyu bu baax a baax di am mbégte bu baax a baax ci accompagnement bi ngeen def ngir euh, amal siyaar bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ngeen ànd ceeg ñun ñu ngi leen ci euh, félicité bu baax di leen ñaan suñu borom defal leen sutura defal leen jàmm te site bi ci moom mu nekk site boo xam ne si tamit day nekk ci bokk ci site intérêt yi ginnaaw loolu tamit mu ngi sant bu baax a baax ñun suñuy kàddu daanaka comme kilifa yi jaar nañ fi wax li ma toll wax lépp kon ñun suñu kàddu dañ koy jëmale ci wàllum sant rek sant gi nag dañuy sant ñi nga xam ne ñoo am yoon ak ñoom siyaara euh, dañ ciy jiital waa génération Cheikh ñi nga xam ne ñoo amoon initiative def lii muy at mu ne ñu àndandoo dem siyaara ji seen maam mu mel ni tamit dañ koy tàmbali euh, ñun gone yi dong la waaye dañoo dem ba ci yàgg mu mel ni kër gi yëpp. dañoo wan ne mbir mi ñor na leen ku ne xam ne tey bis bi ni mu demee ak ni mu tawee ak ni ci gars yi tawee ngay war xam ne kon pëstéef am na lool kon nag ñu ngi leen di encouragé bu baax di leen ñaanal initiative ñu dem ba suñuy sët tamit continuer ko def yàlla mën na yàlla ñu yàlla defal waaye bu baax ñii sant bu baax beral ak cant ki nga xam ne mooy suñu mbokk laay Bousso mi xam ne ci këram lañ nekk nii ni ñu ko daan baaxoo at mu ne saa bu ko tàmbalee jaar fi ñu war a jaar dem siyaara barab bu doppee ñëw ci këram mu dalal ñu yaatal euh, wax dëgg yàlla jël ay taraanga yu baree bari def ko defee ko nam ko daan defee ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom guddal fanam wéral ay cëram waaye tamit ci biir loolu dañ ci doole waale njaboot gi yëpp bu ñu tuddee si mot la. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu maanaam mbokk yi nga xam ne ñoo ngi déglu ak ñu leen siyaar bu baax a baax di leen ndokkeel bu baax a baax ci bis bu bi nga xam ne moom bàyyi ko bisub Seexu Xaadim di ñaan suñu loo xam ne yaa mën ko ci bi sëñ bi nangu ko ko nangoo mu bi mbàkk Seexu Xaadim di digal ci ñaan suñu borom yàggal ko lool ñaan ko bàyyi ko suñu kanam man naa nga xam ne naan na ko mën koo mottali yëpp dañ ànd ko moom ba def sama xol loolu ñun ñu ñëw nga xam ne moo toog jotaay suñu maam Serigne Bousso bi nga xam ne mooy xalifa Bousso bi moom tamit ñu ngi koy bu baax a baax di ko siyaare moom di ko ndokkeel moo tamit di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom yàggal ko fi ba naan yi nga xam ne am na ko ci karaamam sëriñ bi ko ñu mën ko mottali a baax. noonu it dañuy nuyu di siyaare nga xam ne moo toog jotaayu suñu maam sëriñ Cheikh Bousso moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko siyaare moo tamit di ko ndàkkal waaye di ko ñaanal suñu borom di ko bàyyi suñu kanam kattanal ko. yàgg a fas loolu tëgale ko ba yéene yi nga xam ne am na ci kër maamam sëriñ Cheikhou yëpp mu mën koo motale ba naalal yi aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashaabihi at-taahiriin at-tayyibiin wa man iqtafa asaarahum ila yawmi ddin bokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara euh, di jiital ci nuyu bi ak ziara bi euh, Cheikh Mouhamadoul Mountakha di nga xam ne moom la yàlla ci yoonu murit ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mu naa li mu am yéene liggéeyal Serigne Touba lépp di ziara tamit Serigne Bousso bi nga xam ne moo toog ci jotaayu Serigne Bousso bi ñu ko xamee di bàyyi Serigne Bangay moom ñu di ko ñaanal suñu borom kattanal ko te dëgëral ko. di jàllale suñu siyaara ci sëriñ Ahmadou Bousso Birkelane mi nga xam ne itam moo nekk ci bokk kër sëriñ Cheikh Bousso moom it di ko ñaanal suñu borom guddal fanam wéral ay ne bii magam baax yi ko fi jiitu woon tàmbali woon nañ yëpp mu àgg ko ci sago di nuyu mbokk yëpp di siyaarat mbokk yëpp euh, rawatina waa daayira bi Sans le Tourab dañ gën a siiwee ci génération Cheikh lii nag bokk ci. yenn activité annuelle yi nga xam ne dañ koy amal di jàpp bis boo xam ne dañ koy saare seen maam Serigne Cheikh Bousso euh, ñuy sant yàlla bu baax bi ñu ñu fekk watal ko ndax yaakaar naa ne bii mooy juróom-ñaareel wala juróom-ñetteel bi yoon kon war na ne mbooloo mi am nañu dogg ci lépp luñ tàmbali rek fexe ba di ko saxal te dañu wax ne téeméeri rakka ci benn bis ñaari rakka yu sax ngir bu ñu moo kon nag ñu ngi santaat yàlla bu baax bi ñuy bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñoo ngi sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba di am mbégte lool ci teewat bi ñu ci jotaay bi bu am solo bi mel ni teewe nañ ko daaw ñaanoon yàlla fekkee war ko alhamdulilah suñu borom rek sant bu baax di sant bu baax la mbokk yi nga xam ne ñoo ñoo taxawal jëf yu mag ci muy suñu rakk yu baax yi ak suñu doom baax yi nga xam ne waxtu wu nekk ñu jógee ba léegi eh, ñu ngi aw yoon mbooloo mu mel noonu ku ko am ci kër war nga ko sant yàlla ndax loolu eh, ab sag la ñu sant yàlla bu baax ci jëf gu rëy ji nga xam ne taxawal ngeen ko te boole ñu ci mooy la da ngeen baax rek waaye bu leen sooboon lépp jàpp te jëm yi mën nañ ca nekkal boobu loolu nag kon nit ñi bu fekkee da laa ci mbir moo xam ne boo ñëwee mu dox boo ñëwul mu dox dara du gasagal ñu leen ci sant bu baax te di soññ suñu bopp di soññ képp ku ñu war a soññ